je ne ko non je suis pas d'accord. parce que bo Pastef suba sa chaîne bi nga nek di liggéey nga xam tane nga fay def liggéey bu baax bo xam tane askan bi vous mi ngi gis vous mun na suba ñu doto ti jëriñ askan donc vous ko suñu nit la bëgg nañ ko quoi ba vous respecté nañ ko jox nañ ko jël vous nañ ko mu avancer Vous mm-hmm. lu fi doon ben ben cérémonie dédicace ne na fi je crois livre. Mm-hmm. fekk ban livre la. Mm-hmm. lañ jël comme modérateur. Ousmane Sonko ci boobu moo ne buñ ko jël comme modérateur parce que buñ ko jël comme modérateur dañ koy exposer té buñ ko exposer mën nañ ko yakal dara parce que bobu nguur gi képp ko mu gis ngay jege passé wala ngay jege Ousmane Sonko dañ lay fexe faagaagal. Mm-hmm. donc yi la wax ni c'est de petits éléments mais c'est des éléments qui peuvent te permettre d'apprécier que ni ñun ay sénégalais lañ doomu Sénégal bo xamante war nga mën jëm Sénégal yéene nañ la ko mais mbir rek mi ngi ci respecter sa sénégalais yi pare respecter sa taxawaay xam ne fii kenn ku ci nekk dafa am loo liggéey ba egg fi nga egg.